bépp jumtukaayu bureau. li ci yéenekaay yi ñu ànd seeg Lamine Samba. bismillah li ñu doon xaar yegsi na Macky Sall tàmbale na rëq ay ndigg l'observateur yéenekaay ne ma ngi ko tàmbalee démb ca conseil des ministres fay na ci Sitorou mi nga xam ni daf koo waroon l'observateur yéenekaay ne ñëpp xam nañu ni Sitor Ndour ak Macky sàll altine la talaata bés doxul woon ci diggante bi Sitor ne ko mbëllee dem naa ci Abdoulaye Wade waaye l'observateur yéenekaay ne du sitoor du rekk a dem ami sow sama kayit ka saalika na ko noonu dàq nañu ko Le Soleil ne dafa mel ni Macky Sall daal dafay def dàq ganaar waxaale ca soxla ndax administrateur territorial bi lépp la soppi muy ci adi muy ca kudd muy ca commerce intérieur amul lenn lu Macky Sall bàyyi direct info ne dañu ne woon nguur gi fi nekkoon bàyyi lu ñu dara nguur gi fi nekk tey waaye docteur Armand Fall bokk ci direction général des impôts wedd na ministre du budget ne ko keesu nguur goo xam ni am na lu opp ñaari téeméeri milliards ana kan moo ñeme taxaw naan kees yi sont vides xaalis bu bari moo ci nekk ah, te li nekk kan mooy docteur bi ne ci biir direct info mooy nguur gi fi nekk tey dañoo war a bàyyi douanier yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy contrôleur yi ñu contrôler ba xam xaalisu réew mi ñi ko sàcc fan la ñu dugg la libération yéene kay ne ñooñu kat ñoom ñoo dugg ne mu rubb ndax ñu ngi taxaw temb ngir dàq ñaar fukki sàcc ak juróom ñaar fukki sàcc yooyu libération yéene kaay ne bokk na ci ñett ministre d'État yoo xam ni xam nañu leen ci réew mi ñaari président institution ñaar ñoo xam ne jege nañu woon lool Abdoulaye Wade ak ay homme d'affaires Cheikh Mbacké Guissé bind ci biir la libération yéene kay ne lu risque lak la Macky Sall di def ndax du def tubay paate képp ca boole li ci kanam raw rawuli gët Walf Fadjri ko dijee su ñu gët yëpp nañu ko teg ca COSEC ak ni nga xam ni noonu la patronat bi séddoo téeméeri million seeni jóob bind ci biir Walf ko dijee daal dañu doon wéyale taxi yi muy waa CNES ak waa UNACOIS kenn ku ci nekk ci ñoom ay millions yu bari nga doon am parweer weer li leer ba leer daal mooy populaire yéene kay ne doomi Abdoulaye Wade ji dugg na ci rapitab sàmbalaw bi te soo moywul du wàcc fi ko neex Abdou Latif Coulibaly waxoon na ko di way taskatu xabaar bi ne xaalisu ANOCI bi ñu jox Karim Wade da koo lekk moom ak i gaam waaye léegi nag waa Forum Civil ñoo génne ab documentaire boo xam ni Karim dugg ne ni mu rubb te documentaire boobu populaire yéen kay ne askan wi yëpp ñoo ko war a xool l'observateur yéen kay ne xool nañu démb Cheikh Béthio Thioune sa sàppe yi nga xam ni moom mooy kaso ba nekk ca Thiès waaye njiitu cantakun yi kenn gisu ko fa démb Sud Quotidien ne gis liste électorale yi kat ci élection législative yi jafe na lool te ñetti fan dong moom moo des ngir ñu tëj yooyu les listes ko Quotidien ne ñi war a remplacer député yi kat ñoom kenn xamagu leen enquête Quotidien ne li war a xam kat mooy ñooñee nga xamante ni nii ñoom ñooy tànn ci biir bokk yaakaar xaw tuut mu tas parti bi nga xam ni moom mooy parti Moustapha Niass bi laas quotidien ne enquête quotidien yow sax da ngaa yëgul li xew parti Moustapha Niass bi kat moom tas na tasar tas nañu yaakaaru Bruno Metsu nekkul entraîneur bu équipe nationale bu Sénégal stade yéene kaay ne Pierre Lechantre mooy coach bi le quotidien yéene kaay ne moom la ñu tànn waaye ay adjoint sénégalais la war a tànn li leer ba leer daal mooy tànn sa bu la neex sunu làmb ne face to face bi nga xam ne moo doon am démb ca RTS ci diggante Yaxya Jóob Yékini ak Balla Gaye numéro 2 mi ko daan Yaxya Jóob Yékini ne bu daanoon kii di Balla Gaye day bàyyi làmb li leer ba leer daal mooy mbokk yi ku bàyyi xët naaj laas ko diñee moo dik ak ñun ci loo xam ni bu ma leen ko waxee sax seen yaram day daw ana jur doom ba noppi di ko sàkku maanaam di ko tëddee laas ko diñee ne waa ji da doon bàyyi ba xaadi ju du jot mu wàcc ci lal bi mu doon tëdd ak soxna si fekki doom yi ci suuf ndekete yoo mi ngi lal caay-caay moom ak doomam ji am fukki at ak ñett di ko sàkk guddeeg bëccëg suba ak ngoon naka doom ji tàyyi sonn de dem di ko wax ndijaay ji xam ngeen ndijaay ji lan la def di raay dënnu xale bi auzu billahi mina sheytaani rajim laa ilaha illa allah <laughs> dëkk bi tas na